ni nga xamante ne ni noonu la ko jigéen ñi daal di jàmbatee depuis boobee ba léegi naan ma as koor gaa ngi dem yaram yaa ngi gën di jeex as koor gaa ngi dem tubéy yaa ngi wadd waral nag ñu daal leen di indil li nga xamante ni moom moo di sirop VIP. Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 507 27 29. Sénégal 4 TV forever. Vous dee gan nga ci kër gi nak bésal bouton abonnement bi té bul faté activer walla cloche de notification bi de ngir baña tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay. asalaamaaleykum mbokki internet du Sénégal 4 TV nuyu wat nañu len bu baax a baax jaare leen jox kenn ku ci nek ci yéen sa way

gis metre El Hadj jàpp ci loxol Adji Sarr di wammat mel ni jàmbaar ju jëm xare vraiment muy image bu image bu reetaan bi wax dëgg fa yàlla waaye man li ma attiré attiré sama attention ba tax tey ma ne xaaral ma def ci benn vidéo mooy dama gis benn vidéo ci internet bi ñu xool. c'est ça justice pour Adji Sarr. justice pour ni ay ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay pro loolu wax ni dañoo demoon ngir jàppal Adji Sarr tànk maanaam ngir dooleel ko di woote naan dañu dañuy sàkku justice euh, soit faite pour aji Sarr euh, nga gis ni ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy woote sax ils ne sont pas sincères à ce qu'ils font ci nit ku ñu violé nga dem nga ni da koy jàppale da koy jàppale nga yor say pancarte di tëb di xàqataay ak di reetaan ci kuñ nit dañ ko violer ñom ñi ngi yor pancarte yi di tëb di xàqataay di reetaan te neena ñu dañuy réclamer pour justice soit faite ci ko xam dañu wax ni dañu ko violer mom lañ ñew pour jappalé ci ko taxaw di xàqataay ak ak di tëb ak dal waye neena lu dul deug du yàgg lu dul deug du ndax ci lu matul fan fanweeri minute lu matul fanweeri minute bi bi yuuxaloo yi jeexee xoolal fi mu mujj. gis ngeen Maître El Hadj Diouf bi ak waa Kodas yu ñàkk fayra yi dañ doon théâtre. pancarte yëpp xalam ci suuf pancarte yëpp ñu sànni ci suuf pancarte yëpp ñu jàll mu dajaloo ci suuf. lii lan lañ ci mën a jànge lan lañ ci mën a tiire comme leçon. ngay da nga dem ngir jàppal nit ki tànk da nga dem ngir dooleel ko danga dem ngir woote pour que justice soit faite da nga dem woote pour que mu am procès bu équitable même pas trente minutes lii mooy li xew lan lay justifier lan moo waral lii mooy image. journée cinq mille francs dem yuuxul Adji Sarr lii moo fi xewoon tey. <laughs> Ousmane suñ papa Sonko moo ñu yóbbu boobu jarul fay dañuy dem gratuitement. <laughs> voilà tey lii moo fi xew journée 5000 ngir dem yuuxul Adji Sarr journée 5000 ngir dem yëkkatil ko ay pancarte journée 5000 ngir dem woote. ngir presse bi gis ñu filmer ñu wane ñu xam ne Adji Sarr am na ñu koy jàppal tànk

jàppal ni yow yaay mujjee yëg ni yëg nañu la booy def mbir di ko nëbb yow mi koy def di ko nëbb yaay mujjee yëg ni yëg nañu la gis nga ba internet xewee ak léegi réseau social yi bi ñu xewee ci senegal ak léegi laani ku fi yaakaar ni mën nga lalu palang jubal ko ba mu jub doxal ko ba mu dox ba àgg ci sotti te kenn du ci jot te kenn du xam fa dil wa nekk te kenn du xam na nga ko tëggi yaa ngi nax sa bopp yaa ngi nax sa bopp vingt et unième siècle ñu nekk gars yi ils sont partout maa ngi tuub mbokk bu baax a baax tey jégalu ci kàddu yi ñu ci wax muy jub xam ne di bala kàttanal laahu buur bi la ndax itam danoo woor ba heure bi sonn lool maa radi taal yi <laughs> dëgg yàlla sonn nañu lool ci waxee Adji Sarr ak Sonko lu ci dëng tamit ngeen jégal ñu ko xam ne suñu gàtt xam-xam laa ñàkk mën a wax السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته